Sidi Badiane Ndindi ñi ngi lay delloo njukkal ndax lépp loo am bokk nga ko waan Ndindi yàlla jëm kanam parce que defe naa ne kon Ndindi dina baax a baax comme li mu léegi ci Pape du Fall rek yaakaar naa ne boo nee Pape Modou soobee yàlla ñoom ñoo lay njëkk a wax xam nañ leen dem tëggi ko feneen waaye dane du may def yaroo fii laa koy defee fii la ñore kon docteur Omar Badiane gàcce nga laam li nga def rafet na eggale délégation bi biñ ñëwee ñi ngi ci fekk jëwriñ Sam Diop muy kii fekk fi le président Sidi Badiane bi ñu ñëwee fekk fi le président Sidi Badiane comme ni liggéey foo ñëw ñu ne lii moo ko fi liggéey lii moo ko fi def lii moo ko fi jox te du doon lu ñaaw mu ngaa laama waaye ñu ñëw fekk fi Maysa Niang mu doomi Ndindi ñu fekk suñu grand taala bopp président kenn ñaa ngi noonu président ànd defar commune de Ndindi ma ko waxoon léegi muy mu um, association boo xam ne association bu ubbeeku la ànd defar commune de Ndindi képp koo xam ne bëgg nga cee participer rek boo gisee jëwriñ Sam Diop dina la jaay carte association bi nag jëree si commune de ngi lay wax yóbbante Ousmane Mara Diop may nekk ci oto bi léegi woo na ma téléphone ne délégation bi tey ci ñi ko waroon a composé ànd ci la bokk waaye ay xat-xat moo ko jàpp ak ay yitte waaye bu ñu pare ne Pape Modou Fall te ña jiitu la war a bokk waaye yaakaar naa ne Mara fu mu ñëwul magam yi nekk li bokk ndey ak baay teew président Sidi Média Tekki bi waaw waaw ndeysaan seed. waa arbitre ñu ne bu bal bi taxawee changement am na. l' arbitre bu bal bi taxawee ñu ne changement am na. arbitre de touche moo ko wax. arbitre changement changement. seen lumeen ñu ne Samba Badiane Samba Badiane jërëjëf ko bi monsieur Baye ñu ngi lay wax yóbbante Ousmane Mara Diop di may nekk ci oto bi léegi woo na ma téléphone ne délégation bi tey ci ñi ko waroon a composé ànd ci la bokk waaye ay xat-xat moo ko jàpp ak ay yitte waaye bu ñu paree ne Pape Modou Fall te jiitu la war a bokk waaye yaakaar naa ne Mara fu mu ñëwul magam yi nekk bi bokk ndee baay Mara teew président Sidi Badiane tekki bi waaw waaw ndeysaan arbitre waa arbitre ñu ne bu bal bi taxawee changement am na ñu ne l'arbitre bu bal bi taxawee ñu ne changement am na ñu ne tuuti moo ko wax arbitre changement changement ASC Louvain ñu ne Samba Badiane Samba Badiane jërëjëf si commune bi mooy xam ne diggante Kër Awa muy Luumeen ak Mboobeen benn dëkk rek la donc ngeen def fair play yaakaar naa li waroon am moom mooy ñu terminer match bi ci jàmm ak salaam bien que nag aw ay mu fi mais moom ngeen a jeexal quand même ba ba ba ba ba mu gën a rafet euh, xëy na guddee gi moom moo ko yokk mais ñu jàpp ne rek euh, war nañu sant bu baax ki nga xam ne moo organisé tournoi bi muy le docteur Omar Badiane euh, war nañu sant bu baax gërëm aussi ki nga xam ne moom mooy parrain bi di. mu euh, Pape Modou Fall nga xam ne moom itam wax dëgg yàlla moo nekk le directeur de l'emploi te mu yàgg def ci biir commune Ndindi ak ci biir arrondissement Ndindi ak ci biir département Diourbel muy koo xam ne aussi jeune bi bari war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax jeune la te yéeneem ci département boobu mooy liggéey pour que département bi développé yaakaar naa lim fi def ci ay emploi li mu fi créé ci emploi dugal ko fi ci xaalis ci biir euh, commune Ndindi gëm naa ne ñii politique yi département Diourbel suma kenn ku ko ci def. kon la waral lañ ko am cant. ak ngërëm vraiment di ñaanal ñaari équipe yi te ngeen góorgóorlu bu baax te moytu seytaane parce que amul njëriñ yéen ñëpp benn ngeen yaakaar naa Luumeen ak euh, Mboobeen benn lañu. kon ñu ngi leen di euh, exhorté wax ngeen gën doolee taxaw doole ànd te moytu leen di féewale jërë ngeen jëf. macha allah. bon man la docteur Badiane Omar. ma organisé woon euh, tournoi bi nga xam ne moom lañ doon def jongo mu nekkoon première édition coupe Pape Modou Fall emploi président directeur de l'emploi mais également di président parti dëgg moo wóor première édition la woon di jongo 2022 bon tournoi yi y avait six équipes y avait jongo y Kër Awa y avait Mbobeen y avait Dagga Layabe ak Paypay bon commencement bi équipe bu ne amoon na bal ak subvention loolu moo nekkoon début bi biñ demee ba si biir euh, mboobeen ak Crao ñoom ñoo doon finaalu tey euh, mais malheureusement amoon na quelques ak yu ndaw après mu guddi xam nga amul lampoon xam nga foofu terrain bi amul lamp amul dara malheureusement mu guddi après arbitre bu tas affaire yi léegi nag bi mu ko tasee on est obligé ñu séparer leen ko à deux quoi bon je pense que ça fait xaw na yàgg ah parce que normalement finale bi waroon nañ ko def bu yàgg mais le parrain muy le directeur Pape Moudou Fall moo xawoon na jàpp léegi nag bi mu demee bi nga xam ne am na jot malgré que ñëwul tey mais mu yebal une une forte délégation dirigée par Mbaye Niang ñu koy remercier également si kaw loolu aussi bëgg nañu remercier le directeur Pape Modou Fall le président directeur Pape Modou Fall si kaw engagement am engagement si kaw tout ce qui développement sur le plan sanitaire sur le plan emploi lépp ku nekk gis na li muy def si département bi mais également si région bi et même mën naa wax sax au niveau national parce que tey emploi fi mu àgg ki ko fa àggale mooy Pape Modou Fall donc ñun ñu ngi koy remercier vraiment liñ koy sant sax du am am am na am na commencement mais amul yemukaay waaw parce que képp koo xam ne rek mi ngi nekk Diourbel sur que ça soit sur le département ou wala si région bi gis nga lim fii taxaw ba pare aussi bi ñu waxtaaneek moom si affaire tournoi bi vraiment de see kontaanoon ñëw jàpp si kon tey bu affaire bu réussir moom la kon sargal Pape Modou Fall moom lañ doon def si kaw loolu aussi ñu fexe raffermir les relations de la jeunesse de la commune de Ndindy parce que tamit ku wax football wax wax jeunesse te ku wax emploi aussi wax jeunesse. moo tax ñun tam ñu tànn Pape Modou Fall ndax gis nañ li muy def si wàlla emploi voilà loolu la woon léegi nag li ñuy lancé appel à monsieur le président de la république mooy mu gën a yokk doole le président directeur Pape Modou Fall ñun dañuy wax ne pourquoi pas sax mu dem ba def ministère de l'emploi et de l'insertion mu nekk ministère boo xam ni dañ koy teg ci loxoom pour mu gën a mën a liggéey pour Sénégal mais également pour le président Macky Sall parce que yeeyoo na ko mérito na lu raw loolu